bisimilah rahmaani rahim alhamdulilah rabi alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seyduna Mohamed di ñaanal suma ñaari waajur yàlla may leen gudd fan gu ànd ak wér di ñaanal réew mi jàmm kilifa diine kilifa aada yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ñaanal ki nga xam ne ni mooy suma leader di président Ablaye Wade ñaan yàlla mu fekkee léppi Karim Wade ci daraje Seyduna Mohamed sallallahu alayhi barke mag ñu baax ñëpp barke weeru safar wi ñu nekk nga xam ne siré sëriñ ni woon kaay leen sant la ma yàlla te mag ñi wax nañu tamit Cheikh Ahmed Tidiane ci la kat ya. kon dafay wane ne weer wu màgg la kon tey suñu toogee samay wóllëre di samay xarit ñuy ay handicapé ma bokk ak ñoom lépp nga xam dañuy wax ne ñooy sama doomu di sama doomu bay. kon bu ñu toogee jël tey benn bis ñëw jagleel ma ngir yendoo ak man fa tabarakallah jang kamil qur'an jang khatmu bi ñaan suñu borom réew mi sénégal yàlla da fi jàmm ñaanal fa tabarakallah président wadd ñaanal mbokk jullit yëpp ñaanal ñi nga xam ne ñooy waaji dem touba ci rahman rahim ci alhamdulilahi rabbi alamin di ñaan suñ muntaxa mbàkke yàlla na galol yàlla yàggal lool mbàkke ndax jëfam ji jëf ci mi barki demboo président Ablaye Wade ak président Macky Sall joxante loxo te yàlla dogal fii tey le 10 octobre tey handicapé daje fii dafaat ñaan ngir réew mi am jàmm kon ñun dañuy dellu sant yàlla bu baax ndax handicapé yi su may xarit lañ su may wóllëre lañ su may am jàmm lañu dañ ma yéene jàmm ba nga xam ni su ma feebaree dootuñu am jàmm dootuñu am salaam di ma ñaanal di ñaanal sama njaboot kon ñooñu aw ma seen fay damay ñaan buur bi subhaanahu wa taala yàlla mi nga am fay yàlla na yàlla fay leen damay wax ni ñoom du ma mës a commerce ci ñoom du ma mës politique ci ñoom loolu moo tax su tabaarakallaaw seen conférence ñëwee kuy sama am di jàmm damay dem yëgal la ni la loo am yobul ko sa bopp nga joxal leen ko seen bopp conférence bi passé ku ci mel ni Pape Ilimane Sakho Ibrahima Sakho ñëw na fa indi teraanga ju bëri maître Xaasum Touré ñëw na fa indi teraanga ju bëri as ndaw indi teraanga ju bëri te ñooñu ñëpp ginnaaw yàlla ci man la jaare ak sama xamee ak ñoom kon ku mel ni Siga Diagne marché poisson ak ñeneen ak ñeneen kon tey suñu toogee ñu ñëw yendu silma looloo tax man ne bii bés ma ko mës a politique bii bés tamit du ma mës a di ci wut ci ñoom dara damay faral di wax ne handicapé yi su fekkee ne nan naa lekk ci dërëm ci ñoom muy au niveau national wala international yàlla ñëpp dem àjjana man ma dem sawara ndax loolu waxewuma ko pour les setal sama der dama ko wax ngir lu ma la ci sama bopp diko ko dund ak ñoom bi ci des nag mooy tey li nga xam la sama rakk def di dom ci mer, dom ju Kébémer du sago diko ko tiitaroo mu international good gi si mu jël valeur bu toll nii ci ay matel. jox ma ko ni ma ko jox handicapé yi ci bés bi nga xam moom lañ yendu si sama kër li dafay wane ne dëgg ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na la yàlla may réussite ci sa carrière yaa xam li nga gën bëgg yàlla na la ko yàlla defal ñun kontaan nañu di gërëm bu baax waa allo Dakar di gërëm bu baax mbokk yi di gërëm am di yi di gërëm wóllëre di gërëm ñëpp ndax kenn ku ci nekk xam na ne benn lam du yëngu te xam na ne lii fa tabaarakala sena xaalixin yàlla defal na ma sutura nag sama alal rek moo ci dugg maa koy wax ci kaw sama alal rek moo ci dugg li ma yàlla wërsëgale moom laa togg ko ñu bokk ko muy ñam ñu dugal ko suñu biir ñu ngi ñaan borom subhaanahu wa taala yàlla na rees ci dara jey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun kontaan nañu di gërëm waa Allo dakaar di gërëm sama xarit bu baax bu naa ma fàtti xam nga ndax li mu def nii yabalal ma équipe ñu ñëw taxaw ma ci bis boo xam ne bisu teraanga la maa ngi gërëm sama bokk yëpp du ma bàyyi kenn gërëm sama yaay gërëm sama papa gërëm samay xarit gërëm samay àndandoo gërëm imam Babacar Niass waaye di gërëm particulièrement association des handicapés moteurs bu Grand Yoff lii ñu ma may ci seen bopp ma filmer ko tey mën a toog ni dara waralu ko lu jàmm ak salaam di gërëm na ki ma boole ak ñoom muy Oustaz Idrissa Seck sa Diop moo ma boolee ñoom présenté ma leen ma taxaw ci ngir liggéeyal ci sama borom ngir sama ëllëg ndax sama papa dafay faral di wax ni bu xëy neexul na ngontu neex na xëyaat dootul am xëy na jaar naa ci tu tànk waaye yàlla mi mi nga xam ne moo mën di fa tabaarakallaa di mbaa yàlla yàlla yàlla boole ci ñi mi mbaa yàlla ak jullit yëpp sama sëriñ imaam Amsata daan na ko wax kon ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla bu mu doon suñu mujjug daje tey daal kontaan nañu waa pikin tey bëgg nañu ndax li may wax rek wootew ma ngir puukare dama woote ngir su may bokk laa am muy ay handicapé ñu ñëw yendu sil muy ngan gu neex ci man ngan goo xam ni am na fu mu tàmbalee ci man ci neex-neex way amul fu mu yem kon maa ngi ñaan réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm di ñaanal nak sama rak Karim Meïssa Wade yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd du guy lu mu bokk ak waa Sénégal te muy naataanga Sénégal ni bàyyam yore won réew mi mi neex ba ñëpp naan Ablaye Wade day yàq yàlla ko nguur Karim ci daraje Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa bëgg naa kontaan naa en tant que communicateur traditionnel nga xam ne réew mi réewu jàmm la réew mi réewu jàmm la barke dem bi ñu ubbi Masaalikul naan kenn ku ne gis na taxawaay Serigne taxa ak porte parole mu Cheikh Bass waaye kenn ku ne gis na diine ji Pape Malick si nu mu taxawe maa ngi li gën a dawloo sama yaram nag dafa am mag mu dëkk Njaasaan bokk ci axlu kunta ñëw ci jumaa ji fa tabaarakallaaw waaye bi ko loolu dabee ñu wax ko ni ko sapeur yi ñëw di ko jël si mu ni kenn mënu maa jëlee jumaa ji te julliwu ma ba pare loolu keroog daw na sama yaram kon yaakaar naa ni